Kité TV bu leen di fàtte di abonné ci suñu chaîne ñu ñëw fii ba léegi ci Grand Thiès génn ñu Grand Thiès ñu fi fekk euh, tonto Abdou tonto Abdou Jojo la bu baax a baax. maa ngi lay fay bu baax waa RTTA ah. maa ngi leen di bu baax di kontaan ci ak waa Sen 24 sama sama sama kër foofu sama kër la ah, di kontaan bu baax ci seen liggéey vraiment mu doon loo xamante ne ñun téer yëpp dañ koy saluer vraiment. voilà. bi tey ñoo fekk la fii sa place gis nañ ni tabaski daa ak ren na lool daa ñuy woon ci Covid 19 bi ren aussi ñu ngi préparé troisième vague te daaw ay masque dong lañ doon ñaw ñaw ñu ay yére loo gis ci événement bi. waaw événement bi sant nañ ci yàlla bu baax ndax daaw ku nekk gis na nu mu demee ren suñu boroom suturaal nañu ba xéwal gi ñëw na tey te atelier boo dugg macha allah fees nañ dell. voilà kon sant nañ bu baax waaw tey ñaan yàlla feebar bi ñu ñu ñu tuddal rek ñu naan troisième vague mu mu yem fi bañ a ñëw voilà waaw mais sant nañ ci yàlla bu baax a baax moom te am na changement bu baax waaw. sa client yi noo dundee ak ñoom ba indil la jasneer ak kontu jasneer ñi nga xam ne kontu jasneer lañu indi naan la jasneer laa fi ni baa amoo ay jafe-jafe ci yooyu. non côté boobu moom yàlla dimbali dimbali nañu amuñu problème parce que dañuy communiquer suñuy client même suñ leen naxee bu ñu ñëwee dañ leen xamal lii dañ leen a nax ñu delloo ko côté boobu moom sant nañ ci yàlla bu baax a baax ndax bu ñu parfois sax ñenn ñun ñoo leen di jëndal tissu ñu ëpp ñun ñoo leen di jëndal tissu ñawal leen jaay leen ñenn ñi nag ñoom ñooy jëndal seen seen bopp tissu te bu ñuy jënd dañ ñiy laaj ñu wax leen ñu dem jënd ji kon côté boobu duñ ci am benn problème waaye dinaa dégg nag gars yi di wax ni am na ñuñ ci nax ak yooyu. mais man franchement ñi fi jote jaar yëpp macha allah ko amuñu problème boobu waaw teel na ñoo ñëw man d'habitude man su may client buñ nee des na trois mois wala deux mois ci la ñuy ñëw donc ça fait deux mois yoo xamante ni maa ngi ci atelier bi di liggéey waaw moo tax dañuy am habitude teel a liggéey teel a pare mooy suñu solo incha allah lépp feete na boor ni client yee ci des ak yu sew sewaan rek léegi dañu dem xool modèle rek ani yi tendance bi VU la wala organza yi wala 217 yi. jasneer yeeg contre jasneer yi. Suisse gold bi. costume veste veste yi manche veste yi. ñu daal di xuus ba ci biir la ñoo xool. sama cameraman war cee mën a am ñetti abdu bëgg na kay ndax bañul <laughs> bëgg de ñoom bañ waaw mhm. loolu am na mhm. liggéey bi daal moo ngi nii daal en tout cas liggéey nañ ko ci jàmm liggéey nañ ko ci ak dal liggéey nañ ko ci ak xol mu féex ndax xol bu féexee moom loolu liggéey suñu borom def ci barke. waaw. bagage ngi nii. <laughs> baax na ci kañ. yaa tout ba naka ah. ñoom ñu ngi nii bon moom mooy loolu ña fee. yéen a ay ca su bëggee kañ moom mooy loolu dafa yóbbaale kon <laughs> incha allah. bon bi super sang la fil à fil quoi fil à fil liggéey ko xam nga am na ñoo xamante ni moom ñoom fil à fil yi moo leen di gënal parce que ñenn ñi dañuy amay tàngat ba nga xamante ni Getzner dafa tàng quoi ñoom duñ ko mën a àttal waaw bu dee bii bii euh, grand trois pièces bi Getzner la am ñoo xamante ni boo defee sa ñetti abdou rek toog ci ginnaaw élimaan bi macha allah. <laughs> waaw ah, def tuuti koppat yi waaw ah, dañ la ñun ñëpp ñun ñoo lay jaay lépp lay jaay dàll jaay la jaay la jaay ba nga rafet bàyyi la dem ah, kooku waa waa Bilo la ndax dañoo am suñu boutique bopp waaw dañoo am suñu boutique bopp voilà noonu la waaw yi xale yi la xale yi ci lañ bokk xale yi xale yi def seeni bagage xale yi def seeni bagage ak taybaasu mag ñeeg ñooñu daal waaw yëpp ci ci kii bi la bokk ci événement bi la bokk ci événement bi la bokk bi maneris ñu def ko ñu def ko taybaas rek mooy loolu voilà def jeex na noonu la rek waaw waaw ñi moom xam nga xale ndaw yi ci affaire bi lañ bokk te kenn mën leen a éviter moom waaw ñu bokk ci ñu dóoral leen rek loolu la rek. waaw ñetti kàddu moom boo ñëwee ba Grand boo nee rond ñetti kàddu boo nee atelier Abdou Diodio dinañ la dinañ la fa indi moom incha allah en face pharmacie bi rek numéro bi 77 la 429 63 38 voilà. ah. saa mbokk tailleur yi. ak sumay client ak sumay élèves. suma sumay élève waaw ah, ak mbokk yëpp ñëpp maa ngi sant ñëpp surtout téer maa ngi leen di sant di leen ñaanal te xam ni liggéey bi métti na yombul mais jàpp rek parce que ñun ñoo opté doon ay téer dinañ dégg lu ne dinañ daj lu ne mais nañ sant ànd ak dal tey tey tey tey jël lu ñu mën a liggéey kenn bañ ñoo yeb man daal loolu laa am li may conseil son mbokk téer yi clients yi tamit ma leen di ñaanal seen xéwal di gën a yokk ndax ñi mën a indi sañse yi ñuy sañse parce que ñoom ñoo ñuy may xaalis ñun ñoo leen di sañseel kon ñooñ kenn mënul dem bàyyi sa morom ku nekk rek dañ ciy ñaanal sa soob da ngay ñaanal say clients seeni i xéwal gën a yokk ndax ñuy mën di ñëw waaw di ñaanal gën a ñaanal nag suñu mbokk téyeeri toujours dama leen di ñaanal parce que liggéey bi dafa métti ku ci nekkul mënoo koo xam rawatina suñu président Mamadou Seck aussi tamit ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla defal ko jàmm ak tawféex ak taysiir ci barki Serigne liggéey bi macha allah jaar na yoon parce que boo gisee rek étiquette bi moo lay njëkk a jox visibilité étiquette bi macha allah ràññee nañ ko bu baax ndax teer moom euh, métier bu noble la bu du woon ak duñu sol yére tax ñuy sol yére yéen tax ñuy sañse di sajji xew bi ñu dem toj fa macha allah yal na liggéey bi yokk xeewal gi saawan baawan ba sa apprenti yi nga yor incha allah nga leen di ber ñu ubbi seen atelier bopp lépp loo ci rek. yàlla na nekk lu gën ci yow incha